ñu di leen ziar seen frère la Cheikh Anne sama gars yi lu neex laa leen indi si diggante président Ousmane Sonko ak ay militants li taxoon booy naa kii ku ko jox réew mi mu defar ko parce que nga am réew pour nga mën ko defar maanaam li li li Macky yàqee woon réew mi bañ naa yàq na jikko yi parce que pour nga mën a defar réew foofu nga mën a contrôler ndaw ñi foofu tamit nga ne si xolu population bi nga xam ne boo ne bàyyi leen ñu bàyyi boole def leen ñu def Sonko foofu la yegg ak Sénégal foofu la yegg ak sax Afrique Harap tegal video pare ma soog ñëw si commentaire ma ciy def président bisimilah. sécurité su ngeen leen tàccu bu leen leen yóbbu

kii bu leen waxee ne réew mi dana ko defar rek war ngeen ko gëm gis nga lii nag mooy Pastef lii la njëkk jiital si ñun mooy bu ne ñu bàyyi leen ñu bàyyi ba beneen bi mooy jàkkaarloo ak sa ay militants di leen wax dëgg ñun ko dafa am sañ-sañu di ñuy wax dëgg mais ñun noonu lañ am sañ-sañu noonu lañ amee sañ-sañu di wax suñu ay leader dëgg ñun leader yi képp man tey damay woo wóolu benn leader wax ko lu ma neex wax ko li ma sentir ak li ma saf parce que ñun ay duñu ay politiciens you parce que réew mi pour ñu defar ko faw ñu xam ne ñi fal ñoom suñuy jaam lañ ñi nga xam ne ñu ñoo leen di fal ñoom suñu ay jaam lañ foofu sénégalais bu nekk xam ne yow ki nga fal moom sa jaam la amatul fii falu doon ministre vitre say tent say vitre kat kat yoo xam askan wi ko jox ñëw si koñ bi ñu lay woo ngay làqatu wala dugg si ay détails loolu du fi am de su boobaa dañuy gat sa gat sa ak ñoom parce que Sonko loolu la ñu jàngal ñuy waxante dëgg xippi si bët parce loolu mooy defar dëkk dëkk pour nga defar ko ni Sonko def gis lépp moo tax booy am benn haine mais haine bi dindi na ko fu mu le président Ousmane Sonko dindi na haine bi doxoon suñu diggante ak policiers yi. léegi lan la ñuy def tabaxaat beneen Sénégal yoo xam ne boo xamante ni ñëpp dañuy doon ay patriotes. mais xoolal lii bàyyi leen ngeen bàyyi te pourtant en tout cas kii bu ñu rëcc de dem leen jëli carte électeur yi sëñ bi wallahi lépp nii lay demee. nee naa leen bu ñu waxee sax nañ tabax ab hôpital dañ koy tabax si même jour cotiser ko Sonko bu ko neexee bu mu laal pétrole bi bu mu laal gaz bi bu mu laal lu ñu moom lépp si Sénégal lu soxla ñu cotiser ko tabax ko parce que moom na xol yi mu ngi si xol yi te loolu daf si war a profité defar réew mi defar réew mi la si mën a def moo tax ñun gis nga ñun ak suñu leader nii lañ mel leader bu wàcc yoon dañuy wax ak yow après ñu àndaat Sonko bu ñu wàccee yoon day wax ak ñun après ko ne ko mere duñu mere parce que loolu mooy politique mais yow waxee dara rek nga mer funki bu boo defee lu loo warul def nga ne yow yaa yow ñu fal la nga yaakaar war nga taxaw suñu ko boppi Macky musta wax lu ñu def parce que lim ñu doon imposé la léegi nag président Macky Sall sax moom na jeexal na ñun suñu mbir suñu mbir fu doon nekkatul Macky nañu focus ci élection yi jëli suñu carte recteur bi gagné combat bi sama gars yi victoire rek fu mu toll nii moom ndafa rek mooy maire di xalaat ginnaaw ma ah. xëy na <clears throat> gars yi nee nañu naa bàyyi di wax yooyu quoi <laughs> waaye nag bakkan yi ngeen rotal yàlla na leen yàlla yéram loolu lu ñuy lijjanti la loolu moom duma ko jéggale ak lago yeeg ñi ngeen duggal ci kasso yi loolu de wax deug yàlla bokk ci li ma mën a man wallahi lazim deug rek. salam salaamaaleykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wat ñep di nuyu internet yi dellu siwaat di def ben njàngat bu ndaw rek manam temps yep ma ngi gis ñuy woné naan fichier électoral bi euh, particulièrement Matam dafa am gonflage entre élection 2019 mille yi ak élection donc 2000 2024 yi. Euh, am na euh, gonflage boo xamante ni gis nañ ko fa ma bëgg a juste rek attirer l'attention donc des électeurs gis nga euh, Matam cette fois-ci bokk na ci benn Macky Sall rawatina Amadou Ba sax laay wax parce que nekkatu Macky Sall du ko nam ko doon gañewaat te ñaar mooy tey jii situation bi changé na les gens ont les informations qu'il faut par rapport au nombre de bureaux de vote même si le nombre bi nangam la comme ni le ko si c'est ko défé ci ci ci nombre d'électeurs yi tant nombre d'électeurs de façon physique c'est-à-dire que li ci am solo moy nañu am représentativité dans tout l'ensemble donc des bureaux de vote au niveau de Matam particulièrement côté bi nga xamante ni fii la ay Farba Ngom di dëkk ak ñeneen ñi Farba sax gëm na ni cette fois-ci femme, dugalut bopam ci sàcceeg luubal loolu xam naa ko mais du tee nañu fexé ba taxaw ci bureau de vote parce que bureau de vote li ci am solo moy nombre bi na bu yeboo électeurs yi nek un million mais li am solo euh, valablement donc exprimé yi valablement exprimé yooyu nak quel que soit donc alpha bu féké ni les représentations les représentants sont dans les bureaux de vote ñu tok sécuriser donc le vote donté ni sax dañuy gagner ci un bureau de vote wala un endroit quelconque ci Matam ak liko wër doutez ñu téw taxaw fa lolu moy li nga évidemment prédisposition yu ñu wara am la nga nombre de suffrages donc valablement exprimés yi moy mooy PV yi ñu am à donc des bureaux de vote au niveau de Matam su ko ak xol lepp bureau fictif la mu am euh, Matam donc opposition bi ñu surveiller donc forme d'Afdan daan am cette fois ci nous bañ ko mu bañ a am ça importe peu le nombre de nous ñu defoon ko millions d'électeurs, etc. donc euh, lolo la il faut que nous nous bàyyi il faut que euh, les représentants donc du parti surtout dans la coalition gagnante nous ne ñu nekk fépp ci bureau de vote au-delà même de Matam nous nekk à travers le le Sénégal jusqu'au fin fond du village nous ñu taxaw que nekk bureau de vote surveiller ko même bu fekkee ne sax yow bokkuloo ci bokkuloo ci euh, surveillant mën nga bokk ci en tant que en tant que population nga ñew teew moment donc de de délibération yi nga téwé yor sa yor sa appareil yor sa photo fexé ba am des informations qu'il faut su ko défé non noonu ñu koy sécuriser au fur et à mesure ba nga xamanteni l'ensemble donc du territoire dañ ko dañ ko mëna am loolu je pense que suñ ko défé peu importe donc gonflage yooyu ñu def ci yenn endroit yi rawatina donc Matam doo du leen du leen amal benn njëriñ fenn rek leen amal benn njëriñ mooy ñu bañ faa teew su ko defee ñoom ñu mën a gonfler au-delà donc du nombre réel du suffrage donc euh, exprimé bu boobaa lu mel noonu dina am mais na ñun nañu fexe ba taxaw ci taxaw ci bureau yooyu rek su bureau yooyu ñëpp taxawee ba ñu voté bu ñu dépouillé ñu taxaw fa mënuñoo dépouillé lu fa nekkut mënuñoo dépouillé ku fa taxawut donte ne nag nombre de nombre bëri parce que mën nga am nombre d'électeurs mu nekk mu bu bëri mais suffrage valablement exprimé donc nombre de votants yi néo et suffrage donc valablement exprimé également néo motax tax li ci am solo moy nañu tek suñu but surveiller donc ces bureaux de vote c'est l'une des clés essentielles pour contrer en tout cas toute tentative donc de bourrage donc de de de des urnes. je pense que suñ ko fait surtout message que xamante ñepp ñi ñu wa Matam dëkk ci côté fait des enseignants. nek des élèves des étudiants cette fois-ci nañu gëna taxaw. gis nga nañ leen doon naxee wala ñu koy naxe sénégalais loolu jeex na bii moom loolu duñu ñu très voté nañ ko def lu leen neex ñu def waaye ñun dinañ jëf suñu moyen bopp fexe ba nga xamante ni loolu ñu bëgg du am te encore une fois nag may profité di leeral waa APR yi rawatina ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne Amadou Ba mooy seen candidat gis nga ji ngeen a ni Amadou Ba boobu mooy seen torox yéen yéen waa APR ngeen xam ni li seen toroxtaange dëgg dëgg ci Amadou Ba lay jugee yàlla tere teretu ko ñu ko yàlla bu Amadou Ba nekkoon ku ñuy fal fii ci Sénégal li muy njëkk a def man gëm naa ne li muy njëkk def mooy tas APR li Amadou Ba di njëkk a def su fekkoon ne nekk na président mooy tas APR parce que Amadou Ba mënta nekk président ba pare jiite parti boo xamante ni amu fa majorité ñu koy xëccoo di ko ŋawti ŋawte APR ñaar moo mën a am soit mu génn ut parti boppam ut ay affilié boppam sànni aper xeex aper rey aper une bonne fois wala mu indi aper bis suuxal récépissé aper donc original bi ñaar yoy ñaar yoy bo demone bam ba mu nekk ko mara di ci ñun waye musiba ji ci ñi mi gëna toy moy yeen ñi japp ni ne seen bopp waa APR ngeen Amadou Ba ne pourra pas être votre candidat en homme Amadou Ba n'est pas votre candidat soyez malin réveillez-vous et ne vous fatiguez pas pour cette élection c'est perdu donc d'avance votre sort da nga li nga xamante ni mooy seen seen muccuwaay moo ngi nekk ci coalition donc Diomaye bii gagné loolu mooy mooy li nga xamante ni mooy mujj ayibu mujj ayib donc euh, li gën gën gënu gën li gën ci APR loolu la. leneen lu ngeen fexe ba def ko Amadou Ba bii li leen ko Ousmane ko waxee moo nekk ci moom billahi wallahi al azim yéen a ngi dof doflu di jéem a nangam nag am ñu ci bëri rek xam nañ ko ci yéen. parce que xam googu moo tax fi mu ne nii ñu ni tekk di ko seetaan tey ci boppam loolu nag mooy li nga xamante ni mooy seen seen seen seen seen woyu ëllëg Amadou Ba yàlla nañu ko yàlla musal musal ci moom ak képp koo jàpp ni da ko war a woteel rek yàlla nañu yàlla musal ci moom waaye baaxul ci réew mi mais gënati naa bon ci waa APR gënati naa bon ci waa APR loolu nag maa ngi koy wax wax joo xamante ne tey dañ koy wax waaye képp ko ko xeeb ku nekk bu ëllëgee dañ ko gisal sa bopp Amadou Ba ay yitteem te ma dégg ko ci ñu ko jigéen nag li ñu bëgg mooy bu fekkoon ni falu nañ li ñu fas yéene def mooy tas APR ba mu tas xotti war may APR ba mu jeex wala ñu ut APR beneen parti bis boo xamante ni Amadou Ba moo koy jiitee lépp lu takk ci APR ñu dindi ko sànni ko sànni bu boobaa nag si ngeen di xam ni euh, wallaay euh, euh, li li li raam ci ñag bi la jóg. waaye nag ñun gëm nañ ñi te loolu mooy suñu combat te loolu lañ leen di woowee yéen waa APR yéen ñi des xëppi leen seen i bët te ñëw fekk ci coalition Diomaye bi. ni ko ñenn ñi defee jàppale mu nekk victoire boo xamante ni jeunesse bi ñoo koy am Sénégal moo koy am au premier tour incha allah loolu nag képp ku ko dégg ku nekk na ko jottali sa morom rawatina donc yéen ci wéen waa APR yi. te nag lii nag seen ndam lay doon coalition donc bi gañe ndamu coalition bi la ndawum ndamu Sénégal la mais leneen lu def lu ne musiba bi ci seen bopp lay jëme te man maa leen wax lii te incha allah li ci kanam rawu di bët. te euh, encore une fois revenez ñëwaat leen jébbalu ci coalition bi coalition bi moom la fi yàlla teg ku ko nangu noppalu ku ko bañ aussi sonal sa bopp rek wasalaam